wal baladu suuf tayibu bu teey yaxruju dina génne nabaatu gàncaxam bi idni rabbi ci ndigalal boromam waaye wallazi suuf si nga xam ne xabusa bon la yaxruju du génnee gàncax illaa nakidan mooy mu nekk gàncax goo xam ne aji manki la mu kazalika nak noonu nu sarrifu la ñuy la ñuy teqalee alayaati alquran li qawmi ñeel nit ñoo xam ne yashkuruna danañu mën a sant seen seen borom moo tax buur ne wala qad arsalna yónni nañ nooxan ila qawmihi jëm ci nitam ña fa qaala ma nga naan yaa qawmi yéen sama nit ubudullah jaamu leen yàlla maalakum deddu ñeel leen min ilaahin yàlla xayruhu juma yàlla ji leen bindi inni man axaafu ragal naa aleykum ci yéen aadaaba yowmin bugalam bés azimin bu daa ji màgg qaala tontu almalaw mbooloo ma min qawmi ci tam ña innaa ñun day la noraaka gis nañ la fi nga nekk ci réer mu binin gu bir qaala mu ne yaa qawmi yéen aw nit sama laysa bi nekkul ci man dalalatun réer walakin nii waaye man rasulun yonent la min rabbil alamina mu bàyyi ko ci borom bindéef yi ubalixukum maa ngi leen di jot li risalat rabbi yonent ak yàlla waa an ma laay bir lakum ñee leen waa alamu danaa xam min laay ci yàlla ma la taalamuuna loo xam ne yéen xamu leen ko awaajibtum ndax da ngeen di yéemu rek man may kenn ci yéen yàlla yónni ma ndax loolu mooy yéemu ba tax ngeen weddi ma awa ajibtum ndax yéem ngeen an jaakum ba dikkal leen zikrun ak waar min rabbikum bàyyee ko ci borom seen ala rajulin ci waa joo xam ne minkum ci yéen la bàyyeekoo li yanzurakum mu waar leen wala tattaqoo ak ngeen ragal yàlla wala alakum ndax yéen turhamuuna defi yéram leen fa kaddabu ñu weddi ko ba toofaan ba dikkee fa an jeynaaw ñu musal ko wala jën ak nga xam ne maa woo ànd nañ ak moom fil fulki ca gaal ga lajëriñ ñi nga xam ne kat dëboo wet dinañ bi ayat naa suñu alquran innahum ñoom kaanu nekkoon nañ xaw man diw nit amina ñi di way silmaxa gannaaw gi ñu yónni yónti yàlla Huud ñu ngi ko yónni woon moom itam ca ay mbokkam xaw mu aat ñoom fan lañ dëkkoon ña nga dëkkoon laxqaaf laxqaaf mooy tundi beeñ ya nekk diggante Ammaan ak Hadramawut ca weeti Yaman diggante Ammaan ak Hadramawut tundi benn ya fa nekk mooy laxqaaf ma nga ci réewi yaman foofu ñooy ñooy xaw mu aat ay arab lañu woon Hóod lañ yónni woon ci ñoom moom it jaar na fa noox jaaroon ak ñoom waar leen ñu bañ waaye ana fan la yàlla mujj ak ñoom yàlla yebal ci ñoom aw ngelaw loo xam ne ba mu ñëwee déqati na tabax ya dajjiti garab ya jël leen ñoom ñëpp joor leen ñu dee ngelaw woo xam ne alquran nee na tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu laa yura illa masakinuhum kadalika najzi al qawmal mujrimin loola moo leen alak buur ne wa ila aadin yónni nañ ca nitu aad axaawum seen mbokk ma huudan huud qaala mu ngi naan yaa qawmi yéen sama nit wa abudullah jaamu leen yàlla maalakum nde di ñeel leen min ilaahin yàlla xayruhu jumay ji bind afala tattaquuna xanaa du ngeen ko ragal qaala tontu almalaw mboolo ma la dina ni nga xam ne kafaru weddi nañ min xawmi yi ci ña ñu ne innaa ñun la naraaka gis nañ la fi safaat ñu nga nekk ci dese xel wa innaa naka ñun la na dunnu ka dañ laa joortu sax ne minal kaadibiin da nga bokk ci seen kat yi qaala mu ne yaa qawmi yéen sama nit laysa bii nekkul ci man mukk safaatun dese walakin nii waaye rasulun yonente la min rabbil alamin mu bàyyi ko ci borom bindéef yi uballigukum